yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne julli mooy gën jaam mag ci jaamu yi kon bépp jaamu bi ñu def dina ko gën a xool ndax julli suñu borom jox ko ci jaar bi mu indi ko yàlla bi alayhi salaatu wa salaam suñu borom jox ko moo woo yàlla bi alayhi salaatu wa salaam ba mu dikk xam ne ko te fa mu fekk bërëb bu sell ba suñu borom jox ko julli ndax fonk julli rek kon soo bu ñuy jullee nga mun a beneen bërëb bu ñu ko di defee ci kaw foofu kon nag ku jëf nga julli jaar na ci yoonu jub jaar na ci yoonu texe jaar na ci yoonu barke li ko def nag ci barke Cheikh Daouda Mbaye mi nga xam ne moom la fi am lu Kabir Abdoulaye anhu maa dëkkaloon fii di nit koo xam ne dafa fagoon lépp mu jox yàlla subhanahu wa taala suñu borom bi mu ne innamaa ishtara mina l-mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumu l-jannata suñu borom dafa jënd dafa jaay jullit ñi àjjana lu mu leen ko jaayee seen bakkan seen der seen alal suñ daaw la def fagoon léppam jox yàlla nekk ci gannaaw Cheikh. bu yàlla yi nga xam ne fu ñu toll seen xolal ci yàlla seen lan lañ ci yàlla seen cëriñ ci yàlla. ba suñu borom ne rijaalun laa tulhiihim tijaaratu wala bay'un an dikrillaahi suñu daaw la ci la bokk. kon ndax bokkoon léegi ña dàq si kër ña dàq fàttaliku yàlla fu ñu toll. boole ca bokk bi mu bokk suñu na saxiir bokk lañ bokk bàyyi mu wàcc na lépp fàtte ko jaay ko boromam ngir jëndee ko yàlla. nañ la jaamam ak taali bi jëlee ko lépp ak fu mu toll fi mu aat ñu ko suñu na saxiir waxee fi mu fi jëmee ne bokkoon na ci lox daal yi. ñeent juróom-ñaar juróom-ñaar yi nga xam ne ñooy ñaan ko àdduna ci seen barke lay taw ci seen barke la suñu borom di wërsëgale jaam yi moo leen jiwoon ne noonu loolu lépp teewul gisul ne boppam ne dara la gisul ne moom dara la wala ku mag dara wala ku doon dara ñi nga xam ne noonu la si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu waxee ci xaw bu gaaw yarawna anfusahum duunan wala abadan wa annahum lam yaliqu bil karamat wa annahum afsaxul fufta bi kullihim wa annahum lam yaliqu bil ijabaati daañu baax li nga xam ne jeex nañu tàkk ci yàlla te li jeex ci yàlla lépp gisuñu seen bopp suñu borom nëbb na leen seen baax wan leen seen projet bi ngir màgg ci yàlla màgg te ngeen ko teewlu ci seen xol suñu toll ne nañu ngi jaakaar moom ñoom ba ñu gis ne ñoom yelloo ñu tax yàlla ñaan yàlla may leen noonu la seen jàng damay ko doon bopp ak li ko yàlla toll leen lépp mu boole ci diine yoo xam ne kenn mënu ko waral ko def ko gannaawal àddina ndax jaay bi ko jaay ba nga xam ne su continué baasi ndax mel na saa si ñun ba tey leneen ñu bokk na ñu ngeen gis waaye ñoom seen lépp benn bi rek lañ ko jëmee ñun bu ñu fekkee seen borom bu xewagee rek li ñu def gàccee mooy bu xewagee kenn féete leen kaw wala kenn gën leen a jege yàlla wala kenn gën leen a dara waaye ak nit ñi xool ñu ko jeexuñu ko mosuñu ko boole ci seen dara itam lépp lu fi yàlla def itam suñu borom waxoon ci baaxam waaye mosuñu ko tax mosu leen a tax a jóg mosu leen a tax a wax mosu leen a tax a def dara إذا سخر الكلاب أناسا لسعيد فإنهم سعداء ci am na guddi gi ma ko wax nee na suñu borom bu tàggatee ay nit tàggatal leen ku mu texeel ñooñee mu tàggatal ka mu texeel way texe nañu kon saa ba nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf leen tàggataloon Muhammad alayhi salaatu wa salaam ba mu gën a leen seen ndey gën a leen seen baay gën a leen seen kër gën a leen seen alal ba mu war ci lépp màkk dañ dëkkoon fekk ko ci Madina te dawaluñ fa dara lu dul bëgg yàlla ak yonent bi doo nga tax tàggat boobee mooy tàggat ne seeni xol tàggatal ko yonent bi képp ku ñëw ci kaw suuf te leen gënoog yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu borom tàggatal na la moo yi nga xam ne ñoo war a topp ëllëg waaye nag lëf ne ci diggante bi ndax ruu bi bu gënee gis ay ruu ba ruu yee topp ko te ëllëg amul añ bu mu leen xañale lañ ko doon defal ñàkk ko rek bu dem ci neen képp koo xam ne ci da ngaa jàpp ne ab taalibe alal la wala nga def ko alal wala nga def ko tiital wala nga def ko dara nga defe ne dara warul di def boo ëllëgee da ngay gis wala dara jaaxal tamit daanaka wax ne yow am xiyam ngay jàppal sa téere yu baax dana bàyyi. ndax képp koo xam ne kii ñëw na ci yow nga bàllal ko ko téye ko te amuloo añ bàyyi woo ko mu seeti keneen fu mu wuteegi añ ëllëg bu keroog yéen a jàpp sa xaq ci yow bu keroog yow la xiyam ne xaqam jooju la ko xañ dana ko jël ci yow. boo ko amee ñu jël ko boo ko amul ñu fàq bàkkaaram def la ñu tolloog la ko gàllankoor kon nag nit ku nekk war na def lu mu xam ñàkk gor ci moromam gorom suñu moromam ko daganal ci ciy jàngale ñu di ko liggéeyal alal ba wala liggéeyal wala koo jënd ci sa alal te muy jaam boo xam ne ba jaam amee te lislaam dara xelal ko mooy suñu jaam ci xare nga jënd ko ko di la liggéeyal kookee bu féeteeloo suñu borom dina la ko safara wala mu fay sa alal ci tey bakkan keneen ku dul moom la tax ngay sox alalam na fekk ne xam nga foo koy teg Cheikh nag nee na te ba muy ndaw nee naa sama borom tabaraka wa taala nit ku ma topp mbooloo mu ma topp nan ma xamal bu fekkee ne am naa ay ëllëg ma téye leen bu ma ko amul nga wax ma ma yëngu leen léegi ñu seeti feneen sama borom am ñaari at di ma dund lu ma am ñaari at di ma xool nit ba keroog ni ma baal naa la ak képp koo àndal ñu mu fa dem ba mu ne ko ku laal sa yàqu yaram yaram araam araam ak safara ñu mu fa dem ba ne ko ku la tëj bët suñu borom baal na ko ñu mu fa yeneen njëkk la yoo xam ne kenn du ko waxtaane doy na rek ngeen xam ne suñu borom dafa moom lépp am lépp dafa ko neex mu may dem am na yéene te li ñu ko yéene nag dañu ko waxtaane xam ne ko sax waaye li gën a gàtt moo di ne ci ay waxam ndax mbir mu nekk ca ndënd moo baaxoo rek nañ koy dégloo Cheikh nee na moom ruus dafa ko xam te du yem ak yàlla mais nag sama borom dafa ne ma loolu bu xeeb naa ko loolu bu rek xeeb naa ko te lépp lu ci yow mu ne bidaayat naa di awliyaa yi nihaayat nihaayat naa di ambiyaa yi bidaayat loolu nag mbir la moo xam ne gannaaw mos na jël kenn ku wax mu ngi tukku mu ji te nag borom tabaraka wa taala def na maa ngi rafetlu daay sallallahu alayhi wa sallam bokk lu beneen tam keneen mos ko yow wax ni moom. kon nag nit wax dëgg yàlla saxaar bi ne li am moo di saxaar boo ci bëggee dugg na nga ñaan baat dem détaar ba jiir ci wàllu waaye nekk détaar ba rek du mais maa ngi toog yi te amuma baax di dóorum kon nag fexe ba xam li la li nga xam ne mooy charte bi saxaar gi yóbbu la nga xam ko jëmm ko moom nga tax nit a dem. waaw li nga xamante ne man noonu la defee man dafa boole sharia ak xaqiqa boo xam lislaam la koy sant bu si jógee taalib taalib mooy lan mooy jaay yàlla sa bopp sa alal. lépp li nga am ba ki nga xam ne moom ngay xoole yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ngay xoole suñu borom tabaraka wa taala wala ne woon suñu nit sa yëre yëpp jox na nga def ko loolu lay tax a jëriñ loolu la la koy may moo di nga xam na mu toll xam na mu mel te ñu ko xam yàlla borom rek ko xam ndax am borom sax ko sax boole ko jëmm yoo xam ne yaa ci xamuñu leen um ko ne ñu ñi te duñ leen xam ba yomal xiyaam ñun ñu dajeeg moom suñu borom wërsëgal leen ñu taxaw tànk yu dëgër di sàkku sàkk yi wa gën a mag gën a rafet di fab seen bopp jox ko yàlla bëggatuñu dara wacc seen kër wacc seen ndey seen baay wacc seen alal wacc seen doom ak seen xarit wut yàlla ci moom dara ci adduna ci seen loxo mu leen yalwaat loo ñu bëgg ci réew mi yëpp di dajale li ñu am di ko suuf ci ay mbaam di ko dund guddi ak bëccëg bu ñu noppalu ci koo xam ne liggéeyal ko benn bis moo gën a jaamu juróom benn fukki at ñu jox yàlla seen bopp ak guddee boo xam ne nekkatul ci liggéey ñu jullee sëlmal xana seen kuréel ci sikkar di jàng alxuraan bu bëgg bër ñu nekk ko liggéeyu seex xàmmeewuñu naaj ak bopp ak tànk ak set suñ borom may leen maqaama yoo xam ne ñëpp na leen ko ci saa yi ñu nekk nit ñu néew ñu doyee teroogee tëj ba ku nekk jàpp ne yéen da ngay jéem ni ñuy seeni bu jiw ci asamaan bu guddee mu ne nit ñi seenoo bu teroogee ndax tëj bu ñu jiw nit ñi ndax dañoo toog naan coono koo xam ne àgg na ci doyatu ko ñu defal ko koo xam ne àgg ci dayo bu baax ku jéggi dayo koo xam ne bu mu ñëwee ci kat kenn ku mën a natt ko wax dëgg mënu faa mu wëree ba dara ba dégg ci moom parce que ñu ko jëkk a teg ko pour di ilaa sax bi foo di zamani as na sanaa la yëgal yëpp da mu la wax maa ngi gën a teg mooy may waaj a teg nga xam ne mooy moo yor ku yi jamono bi te boo fekk ne nit yàlla ñu mag waaye bu la xeex mooy kuur moo yi jamono bi loolu dafa xam ne daanaka wax ci wàllu baykat yi nga koy bokk leen am na lu ne yàgg yàgg bu àdduna yàgg ba ngeen boole xeex ak dara ndax ñu mën a dara nga jëf ak dara ak ñu ngi di dajee ba dajee mooy lépp lu nekk dayoo dina ko nekk mu jël mënu ko mais daa baaw ko mën a rafet xeex maanaam ñu ma dajee ci jamono ñu ngi leen ci diggante ñu moom ak ñoom ak kenn ku bokkoon ñu ngi ci diggante ak borom bàyyi na leen ko ci biir kon nag yàlla bu fekkee moom di ci def ci yow maanaam te amuloo ko ci yow soo bëgg a àgg te àgguloo ko ci yow la lu baax am yàlla su borom daf koy jaay ñàkk la koy jaay coono la koy jaay man la koy jaay lu baax mën na ko xam ko gis wala man da nga gis ba fay yéen nekk ba mu nekk loolu mooy def lu baax saxaaba yi xam ne suñu borom tabaraka wa taala ak jële ci alquran yi ne gërëm na leen parce que borom bi daa am moom indi bàyyi woon naka tax ci gërëm sa alal maa ngi ko ñi nga xam ne dañoo xamoon seen jëmm ak seen alal ak seen ruum jox yàlla ànd ak yeneen ba yàlla xamal leen ne leen gërëm na leen ndax keroog boobee dañ ko am ak ko fas yéene gën a sàmm fas yéene gën a jaay seen bopp fas yéene gën a jaay seen bànneex àdduna fas yéene di ci naqar ak coono ak tiis bu ëllëgee buñ leen di fay képp ku jàndoon ñoom xeet sa bopp rek ci loolu def ci àdduna ñu àndoon ak sëñ bii nag naan seex bii naan la ñu defoon kon nag ku bëgg bëgg bu ëllëgee te fekk ñooñu war ngaa doon seet nag ku bëgg nga xam coono ba bëgg xam la ma ko sonn ba nekk ko man xëy na nag soxla ma jëlee ci wax dara kenn mënu ko li ma leen ko mën a wax mooy yàlla soo ko def ci yàlla nag di ko ci borom defal soo ko def ci yàlla nag kàtt bi ci borom soo ko def ci yàlla nag borom def ko def ci biir bopp bi moom def foo ko ci yoon def foo ko ci yoon bopp bi la ko ci loolu nag nag bu rëy moo xam ne moom la ñuy waxtaan moom la ñuy waxtaan moom ñuy daan faral ci moom gis nga boo xam ne yokk na ci yokk nga ñu war ko duggoon di wax ko lu nekk ni mu demee ku ko dégg yoo xam ne moom mu ci suñ borom jox kàttan te war maa ko fonk ko dafa daan def moom ba muy ndaw da ko suñ tuubaa dëkk yoon ci kër waajuram ko bu ko di ko jàngal pour ma jotul ci jàpp mu daal ñëw moom ma daan daan mu doon daan dañu daan xam ne yëpp man ñaar ñëpp ñoom ñaar rek seen ak mu ma daan ñëw itam day gis bu ci nekk ci soo ci daal am baaba xanaa ci dem daal di te boo ko gisee ba déglu lépp loo déglu woon